daara gi daalalu euh, Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag wala cinq bu jot euh, ci weeru tubaab bi dañoo jaayante ngir euh, indil dund fii ci kër Serigne Cheikh jëm lu mel ne ceeb dëwlin ak ya cay aju yëpp ngir jébbal ko Serigne bi ñoom nag ci loolu ci lañ nekk sax nii ngir ci kanam tuuti rek Serigne bi ubbi ñu mën koo jébbal liggéey boobu di la cinq la cinq boobu nag ñooñu nag ci biir daara gi nekk waaye ñooñu lañ tuddee waa Touba Gébb Fall waa Touba Gébb ñoo xam ne dañoo nekk ci daara ji di àlalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ñoom ñoo ko jaayante seen giirug dund nga xam ne la 5 bu jot du premier o 4 jàpp le 5 ci suba gi ci la ñuy dajale addiya yooyu bu ko defee nag ñi daal di dem wecceeku ji ko ceeb yeeg donu yaay cay aju yëpp rek euh, ngir la 5 ci euh, ngoon gi 18h jàpp 19h ñu jëbal ko Serigne Seye Jëmb Fall xalif général euh, des Baye Fall borom daara ji di alalu Sidi Ibrahim Fall sunu waaja murid bu mag ba. boo seetee ci ginnaaw nii ñu ngi tàmbali indi dund gi nga xam ne mooy dundu la 5 yi ñu ànd ak gis ngeen Serigne Saliou Lam moom mi nga xam ne ku ne xam na ne soldat la ci tub Cheikh Ibra waaw dama koy tuddee sax desit bi ku dee itam boo gisee général général Serigne Cheikh Jëmb itam ci dund bi nga xam ne mooy chaque la 5 dañ koy indi di ko jox Serigne bi waxoon naa barki démb ne leen ne Euh, Baye Mourid Baawa gis ngeen ko mi ngi yenu li nga xamante ne mooy mooy mooy aju wàllu meew yi euh, Sidna Ahmad Xataab lii de xanaa def la defit la waaye defati la laka lañ ci mën a jàngatee Baye Baawa waaw moom de xanaa jaayante rek li ñuy wax saasu su ne rek ku jaayante ku ne daal maanaam mënatoo dëpp waaw te dañoo jaayante ak sëriñ bi te maanaam sëñ Omar Doumbouya dafa taxaw fii ne yéen de bokk ngeen ci ñi ngeen xam ne ba ngeen jaayantee ba léegi dëpp te damay wax ne nag jaayante ku ne maanaam asgor rek koy def te asgor xamul jàpp di baax mhm. te dañoo jàpp ko a jàpp nag moo tax ñu jàpp ko rek ba ñu dëpp kon mën nañu wax ne kon lii ngeen natt ne mooy dund ak sëriñ bi ci weer wi waaw mooy dund bi saa su ne la cinq bu nekk nag maanaam nu indi ko jaayante ko waa Touba Gébbu Fall mhm. waaw Seydina a xanaa lii de kon jël na koppar yu bëree bëri xanaa lu nekk ci budget la wala lu nekk la waaw xanaa ci bisab sëñ bi rek mhm. waaw foofu la nekk waaye kenn denc ko ci poos maam lii tay lañ ko dajale ci suba ci waaw Seydina Omar liggéey bu toll nga sémb ko ba noppi ngeen sémb ko ba noppi mbaa ñu sémb ko ba noppi duggaat ci li nu mel ci lii ku ko xool xam ne leen nat la ci koppari sëriñ bi xalal la naka lañ mën a coordonné ñaari te yëpp benn benn soxewu ci. waa xam nga jëf moom balay jariñ mooy ba sax rawat na jëfal sëriñ bi. Mhm. te lii nii ndigal lu ñu dab la waaye li sax ci ñun mooy lii moo tax force lu mën a amit day am moom gis ngeen ko itam euh, mbokk taalibe ñu ngi noonu di euh, yanu li nga xamante ne mooy euh, ceeb bi di ko jëmale ci biir kër sëriñ bi waaye boo seetee mbégte mi ñu àndal gis nga ko kooku mooy borom ton yi Euh, boo seetee mbégte mi ñuy àndal ngay xam ne lépp rek maam sëriñ bi mat a jëfal te kum ci doon itam nag jëf jëf nga ci sawalu alal waaye itam gis nga ñu ngi feddali seen pas-pas ci seen doole di ko yët ki nga xamante euh, euh, fii nag mooy ci kees gi ne fii la góor yàlla yëpp di tuddee yàlla ci kër sëriñ Cheikh Jëmb Fall soxna yaa ngoog itam ak seen pas-pas ñoom itam ak seen mbégte te itam li gën a yéeme ba gën a yéeme mooy li góor ñuy joxe mbaa boog li waa daara ji di joxe waa kër gi sax ñoom itam lu ëpp danañ ko joxe ndax yaa mbaay rek loolu na dayoo gis ngeen tam waa kër gi kenn du toog ci liggéey bi moo xam béton bi la moo xam ciment bi la moo xam yenu la moo xam yëkkati la lu mu ci mënti doon itam ñoom ñëpp ñu ngi ñu ngi fasante di ànd ak mbokk taalibe bi itam euh, di euh, indi euh, di jox seen seen seen seen seen seen wàll ci liggéey bi indi liñ baaxoo indi saa yu si mooy loolu ñu jaante woon sëñ bi bii di Touba Guibou loo koy seefal jëm ci biir Abdou Seefal jaante woon moom sax weer wu ne kenn ku ne indi la ak diw ñu ko baaxoo indi joxoo ko muy nag yee nag daara ji xam nga ne jaasima toll nañ foo xam ne ñu at lépp xam nga ni bëgg xam nga ni yéene sëñ bi te yéen xam ngeen ni xam nañ ni ñu yéene xam nañu sëñ bi yéene kon dañuy jox gi rek nga motali ko borom. bi nee na jaa jëfati sëriñ bi moo ngi leen di beral aw cant moo ngi leen di beral ab ngërëm moom it nangul na leen seenu liggéey ci wér nee na mboolem liggéey yi jiitu ko ci loxoom bi teg ko ci loxoy sëñ Moussa Fall teg ko ci na ndax làmm na seen saa yi seen baati lépp. sëriñ bi rek moo ci nekk lan la nekk ci li ngeen diggee woon ak moom nee saa yu ñu xëyee da di gën a fàttali loolu gën koo dëggal gën a waaxu jëm ca loolu nee na foofu rek daal leen defal am ndaxam nee na foofu rek li ngeen bëgg lépp saa borom daal leen ko defal ndax li ko def mooy yoon wi kat bi yoon wax déedéet Cheikh Ibrahima Fall dane mbirum sëñ Bamba mënees nañ ko misaalee ci bascule bascule kat boo ko tiimoon di wax ba suba du wàcc bu toll ne benn centime waaye loo ci teg lu mu woyof woyof foo mu wàccee dara kon mooy ku ne ci yoon wi wax mun a fexe ba nu fay ko waaye ku ne ci yoon wiy jëf foofu rek nga daje tawfeexu sëriñ bi mooy nii ngeen jëmul rek sëriñ bi mooy fi ngeen yegg sëriñ bi fi ngeen yegg bi nag na ngeen xam ni seen pas-pas moo leen fa yóbbu fii ngeen di sëriñ bi na ngeen xam ni seen dëggal ak seenu xataraayu jëm ci sëriñ bi boo déggee kat day xataraayu mooy kat day day jëflanteeg loo xam ne moo ko man waaye bu defee li mu man lépp wàcc na loolu nag ngeen def xam nañ ni lii ngeen diggee ci sëriñ bi li bàyyiwu leen lenn ci seen kër newul ci seen i poos waaye danoo xam ne jëmmu doomu aadama moo ëpp doole lépp jox ngeen ko sëriñ jëm it li muy am am doole xolo ko ëpp doole te seen xol yi sëriñ bi làmb na ko ci saa yi rek baati moom rek moo ci nekk te moom mooy Cheikh Ibra Fall ndax ci ngeen songee liggéey bi booba tey jii demu leen fenn lii sax day mënoon nañ koo làpp ba liggéey bi noppi te buñ ko defoon sëriñ bi ne ne waaw góor ndax da ngay ne ci biir sëriñ bi nag ndax waxoon naa ko keroog sëñ Bay Jaxate nee na murit day jagal kër sëriñam këram door a jag waaye na ngeen xam ne bu liy noppee seen mbir rek faw faw mu jag rek ba faw fiñ ko teg nag fu wér la xam nañ ni sëriñ bi pas-pas bi ngeen am ci moom ba ba yegg fi ngeen yegg faw rek di ngeen wuuteeg ku yegg si wut faw di ngeen wuuteeg ku fa wut ni ngeen fa boo sëñ leen di bu baax moo ngi leen di gërëm bu baax xolam seet na ci yéen bu yii yéen dox leen rek yéen dox leen rek nit nag bu nekkee ci dëgg faw faw mu am ñi nga xam mu fenn dañu ne ci wax rek waaye yéen dox leen rek sëñ bi nee na leen jàkk murid sëriñ bi nee nañ leen jàkk sëriñ bi doxalewul kenn seen diggante ndax sëriñ bii wallahi asim mboolem ku ma mu a gis mu yegg fi ngeen yegg seen bi kenn waxatul say mbir ci jàpp jërë ngeen jëf jaa ngeen jëf lu baax ku koy bëgg foog foog foog mu bari ay waaye waaye nag waaye nag waaye nag waaye jafe-jafe jàppandal rek sëñ bi dana jàppandal seen lépp wallaay asin yàlla xam na ko di jotal te yaatal te bëgg ñëpp jariñoo te xam ne kat euh, ndigal moom saabu bu jógee njariñ taxaw na kon sëriñ baa ngi noo ngi dongo yaa ngi murid yaa ngi waa daara ay li moom Cheikh Ibra Fall gépp a ngi nii jaayante woon nag Touba Guébou Fall muy dund bi nga xam ne moo jëm si ci kër sëriñ bi ñu andi woon ko toog fii ci sëriñ bi di yaatalaat liggéey bi ndax xam nañ ne kat yàlla xatul kon ku ko bëgg a xatal ku ne yaa xat kon nañ ko yaatal ba ku ne mën cee jëriñu ndax ku ne mën na cee jëriñu ku ne xaj nga ci nag looloo waral nuy woo góor ak jigéen mag ak ndaw waa biir réew mi ak waa bitim réew kenn ku ci nekk noo lay woo ci liggéey bi kër sëñ Cheikh Jëmb Fall gii nga xam ne mooy xalifa général de maam Cheikh Ibrahima Fall ñu jox ko waa daara Ali Maam Cheikh Fall nag jot ndigal li bi ngir mu yaatu kon daal ñoo ngi ciy woo ñëpp rek jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall Jëmb jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall Jëmb jërëjëfati sëriñ Cheikh Fall Jëmb waa daara ñëwoon di siyaar sëñ bi doon indi la 5 euh, la 5 bi nga xam ne dañ ko baaxoo indi sa su su weer wi deewee euh, muy kuréel boobu di waa Touba Gébbu Fall ñu indi woon ko tey nag ñu ngi soñ soññiwaale liggéey bi xam ne ci ndigalu sëriñ bi lañ ko koy defee mooy yeesal kër gi ñi ngi toll ci miir bi bu ñu fi jógee ñi ngi jëm ci mbaar mi bu ñu ci jógee ñi ngi jëm ci eh, koy soxna yi kon ñu ngi ci soñ ñëpp di ci woo ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf